màkkaan bi nga xam ne moom lañ xamee si di Gambia's Office of the National uh, Security ñoom nag daal amal na ñetti fanu ndaje yoo xam ne dañ doon nag daal waxtaane lu aju rek wàllu coppeeku yi nga xam ne moom la ñaaw amal si rek wàllu doxalinu li nga xam ne moo di karange fii si biir li nga xam ne moo di daal réew ak tamit lu wàllu doxalin gu sell li nag ab ndaje la boo xam ne ñi nga xam ne ñoo si sóob seen nag daal loxo wala ñi nga xam ne ñoo si amal ab njàppandal mu di rek mbootaay Afrique bi ñu xamee si rek daal ECOWAS dinañ ko yaatal si biir li nga xam ne moo di daal yi vice président Mohamed BS jàll moom nag bokk na ci li nga xam ne moo di ay aji ngóom yoo xam ne ni ki démba si rek daal ajjuma gi daal dinañ teewee li nga xam ne moo di ab ubbite juma joo xam ne ñu ngi ko doon amal foofu si diwaanu li nga xam ne moo di daal Tabokoto li nga xam ne moo di juma ju bees jooju ñi nga xam ne ñoo si nag daal soob seen nag loxo mu rek li nga xam ne moo di daal mbootaay bi nga xam ne moom lañ daal di duppee waliwu yàlla bu mag bi ñu xamee si Cheikh Alhaji Aboubacar Zeydi Diallo bu Bansang ak tamit beneen mbootaay bi ñu xamee si Direct Aid ñoom nag daal ñoo taxawal li nga xam ne moo di jumaa jooju dinañ ko yaatal si biir li nga xam ne moo di daal xibaar yi lu rek tollu si téeméer ñaar fukk ak juróom ci li nga xam ne moo di daal ay nag daal taalibe yoo xam dañ nag dañ doon sàkku xeetu xam-xam bi xamee si procurement ñoom nag daal dinañ ndar keppoo la daal jeexal nañ seen i ab nag daal njàng ba dak keroog alxames jébbal nañ leen seen i ab lijaas ñoom nag daal seen xeetu xam-xam boobu ñu ngi ko doon sàkko si rek daal daara jiñ xamee si Gambia Public Procurement Institute dinañ ko yaatal si biir li nga xam ne moo di daal xibaar yi yii ak yeneen gannaaw bàkka bi ñu daal di yaatal samdi la fukki fan yi ak juróom benn si weeru décembre atum 2023 di atum ñaari junne yi ñaar fukk yi ak ñetta ñu indi leen seen jotaay bu mag bi ñu duppee xibaaru bés bi Ibrahim Khalil Gueye moo leen koy indil ñu rek yaatal li nga xam ne moo di daal euh, xibaar yi li nga xam ne moo di màkkaan bi nga xam ne moom lañ xamee si di National Security Office ñoom nag daal xam ne doon waxtaanee lu aju rek si rek wàllu coppite ne moom la ñu amal si rek wàllu doxalinu li nga xam ne moo di karange fii si biir li nga xam ne moo di daal réew mi li nga xam ne moo di nag na sami li nga xam ne moom lañ see waxtaanee mooy nag daal lu aju nag si rek wàllu governance maanaam doxalin nag daal gu nga xam ne moo di daal ndaje yi nga xam ne moom la ñu amal ak ñi nga xam ne ñoo si sóob seen loxo wala ñi nga xam ne ñoo si amal nag daal ab njàppandal moo di daal mbootaay Afrique bi nga xam ne moom daal ECOWAS li nga xam ne moo daal ndaje mi nag daal dajale woon na ñi nga xam ne daal ñoom lañ xamee si civil society organisations moo di daal li xam ne moo di daal mbootaay li nga xam ne moo daal jàmbur te nag daal li nga xam ne moo waral ñu nag dajale leen fa mooy nag daal ñu nag daal gën leen a yee waxtaan ak ñoom ci li nga xam ne moo di daal coppite yi nga xam ne jamono ji ñu koy nag daal amal si rek daal lu aju si rek wàllu di doxalinu kaaraange fii si gis ne loolu dinañ ko nag daal di mun a jëmal ak tamit li nga xam ne moo di pexe yeeg li nga xam ne moo di tërale li nga xam ne moom moo di jamono li nga xam ne moo di daal ndaje ndaje euh, moom nag euh, moo euh, xam ne moo di mbootaay Afrique bi ñu ne moo di daal ndaje moomu nag daal di wax ne li nga xam ne daal moo aju nag si rek wàllu good governance si rek wàllu doxalin gu yi wala daal doxalin nag daal gu sell loolu nag daal mënut a am nag tak tak bàyyi gannaaw lu aju si rek wàllu li nga xam ne moo di daal karange gannaaw bi nga xam ne wax na ne li nga xam ne daal moo aju si rek wàllu karange lu am solo ba na daal pour rek daal ñuy amal nag daal ay coppite si rek wàllu doxalinu li nga xam ne moo di karange lu ama am solo la gannaaw bi nga xam ne ab mbir moo xam ne ñëpp nag daal ñoo si war a suuf seet nag daal loxo moo xam ñoo xam ne ñu si rek ron ñoo xam ne nekku ci li nga xam ne moo di daal li nga xam ne moo di daal nguur gi mu ne daal ñoom ñëpp nag daal ñoo jël li nga xam ne daal moo di seen nag daal ab matuwaay bu ñu sukkandikoo si li nga xam ne eh, moo di daal ay nag daal daal kàddoo moom daal dina wane lu aju nag si rek wàllu indi ay coppite si rek wàllu li nga xam ne moo daal doxali doxalilu li nga xam ne moo di daal kaaraange loolu nag bu fekkee ne daal ñu ngi koy amal dina nag laaj lool ñuy nag daal tàggat ñi nga xam ne ñoom lañ denk wàllu li nga xam ne moo di daal kaaraange fexe nag daal ñu am gën a am ab xarañteef rek wàllu bi nga xam ne moom lañ nag daal nekk euh, ñu bañ leen a bàyyi rek daal euh, nag daal ñu toog noonu rek daal bañ am li bañ amal li nga xam ne moo di ay tàggatu bu ñu sukkandikoo si rek li nga xam ne moo di daal ay nag daal kàddoom moom nag euh, daal dina wane daal li nga xam ne moo di daal ndaje mi nag daal ndaje nag bu am solo la bu ñu sukkandikoo rek si rek moom ki nga xam ne moom lañ xamee si Miata Miata French nga xam ne moom moo toogal mbootaay njaay Afrique boobu ñu xamee rek daal si rek daal ECOWAS eh, ki ñu xamee si rek daal Aboubacar eh, Souleymane Dieng nga xam sax moom mooy national security adviser eh, moom nag daal dina wax nag daal li nga xam ne moo di ndaje bi nga xam ne moom lañ doon amal ndaje la nag bu am boo xam ne nag laaj na ñu nag waxtaan si ak ñi nga xam ne ñoo di civil society organisation si mu di daal mbootaay li nga xam ne moo daal jàmbur su ko defee nag ñoom it nag daal ñu gën leen a yee si rek daal li nga xam ne moo di daal coppite yi nga xam ne ñu ngi koy amal si rek wàllu doxalinu li nga xam ne moo di daal karange ñoom it nag daal boole leen ñu mën a joxe li nga xam ne moo di daal seen xalaat ak li nga xam ne eh, moo di daal seen i gis-gis bu ñu sukkandikoo rek si eh, eh, ne moo di mi nag daal lu am na ne si nag daal yoon wi nga xam ne moom lañ nag daal nekk nag daal jàppane daal li nga xam ko rek si li nga xam ne moo di ay kàddoo moom ki ñu xamee si Aboubacar Souleymane Dieng nga xam ne moo yore na mbal tànk bi ñu si rek daal national sécurité Security Advisor. ñu wéyandi si beneen li nga xam ne moo di daal xibaar ki nga xam ne moom lañ moo yore nobal tànka bi ñu xamee si vice président Mohamed BS Jallow ni ki démb rek daal si rek daal ajuma gi moom it bokkoon na si li nga xam ne moo di daal ay nag téeméeri ay aji ngom yoo xam ne dañ teewe woon li nga xam ne moo di ab ubbi jumaa joo xam ne ñu ngi ko doon amal si diwaan bi ñu xamee si rek daal tabokoto li nga xam ne moo di daal jumaa jooju nag ñi nga xam ne ñoo si sóob seen nag daal loxo moo di li nga xam ne moo di daal ab mbootaay boo xam ne dañ ko nag daal di duppee ki nga xam ne moo di waliwu yàlla bi ñu xamee ne eh, si Aboubacar eh, alhaaji ñu jégalu alhaaji Aboubacar Zeydi Diallo bu dak diwaanu li nga xam ne moo di Bansang moom lañ di duppee li nga xam ne moo di daal eh, nag daal mbootaay boobu ñoom mbootaay bi nag daal ñoom nag daal ñoo amal nag daal jumaa jooju wala ñoo ko taxawal lëkkaloo si ak li nga xam ne moo di beneen mbootaay bi ñu xamee si rek daal direct aid ne moo di jumaa ji nag daal ñu ko nag daal di duppee masjid al miraj noonu lañ lañ duppee li nga xam ne moo di daal jumaa ju bees jooju ab jumaa la joo xamee daal wax nañu nag daal nag daal askan wi nag daal lu nañ ko gannaaw bi nga xamee daal ab mbir la moo xam ne daal dafa nag daal euh, gina nag daal euh, doole li nga xam ne moo di daal euh, diine islam bu ñu sukkandiku rek daal si rek daal yenn si li nga xam ne moo di ay nit ñoo xam ne daal dinañ nag yey yàbbi jëmale ko si li nga xam ne moo di daal jumaa jooju gannaaw bi nga xam ne ne nañ ne dina tamit nag daal yombalal ñi nga xam ne ñoo di aji jaamukat yi wala aji ngom yi ñu mun nag daal di nag mun a dem jaamoo ji seen borom si li nga xam ne moo di daal béréb boobu gannaaw bi nga xamee daal ab nag daal jumaa la joo xam ne daanaka fi mu nekk nag daal askan wi nag daal mun nañ faa jotee gannaaw bi nga xamee ne si nag daal kaw euh, tali gi wala daal si kaw xàll gi la nekk foofu si diwaan bi li nga xam ne moo di daal Tabokoto gannaaw nag daal boo nag daal jéggee rek wala boo passé li nga xam ne moo di Johnson bi ñu xamee si Tabokoto di utali li nga xam ne moo di daal Abuko fala nag daal euh, jumaa ji nag daal di nekk si li nga xam ne moo di daal ubbite jumaa jooju nag am na ay kilifa yu ñu ràññee yoo xam ne teewee nañ ko bokk na si ki ñu na si ki yore nombal Sidi SK Ndiaye bokk na si mayor Talib Ahmed Bensouda bokk na si Essa Dabo di président bu Supreme Islamic Council bokk na si lawyer Ousseynou Dabo ak tamit yeneen si li nga xam ne moo di ay kilifa diine yoo xam ne daal ak ak ñeneen ñoo xam ne tamit uh, teewee nañ li nga xam ne moo di daal uh, nag ubbite jumaa jooju si Alhaji Hassan Aboubacar Diallo moom nag jamono ji nag daal moom nag uh, mooy xalifa ki nga xam ne moo di nitu yàlla bu mag boobu ñu xamee si Cheikh Alhaji Aboubacar Zeydou Diallo bu diwaanu li nga xam ne moo di ban Bansang ki nga xam ne daal jamono ji moo ko si jal bi bi moom sax jamono ji nag moo yore normal tànk bi ñu xamee si Chief Justice of the Gambia moom sax daal niki daal démba euh, si rek daal ubbite jumaa ji nag daal li nga xam ne moo di daal euh, euh, jumaa ji wax nag daal si kanamu li nga xam ne moo di daal mbooloo na ñeneen ñoo xam ne tamit daal dinañ yëkkati seen li nga xam ne moo di daal jumaa ju ne daal fi mu nekk nag daal askan wi mun nañ faa jotee gannaaw bi nga xam ne fu mu nag nekk nag daal du laaj askan wi nag daal di dox lu sore sori pour daal di mun a jotee si li nga xam ne moo di jumaa Touba ki ñu xamee si euh, docteur Waly Ndaw wax nañ ne moom nag daal ab taalibe la si ki nga xam ne moo di daal euh, Cheikh Alhaji Aboubacar Zeydi Diallo moom sax wax nañu daal moo joxe suuf si wala daal pàkk bi nga xam ne fa lañ taxawal jumaa ji nag jumaa ji moom nag moo joxe li nga xam ne moo di daal euh, pàkk boobu noonu wax nañ nag daal wax na ne la li waral mu def loolu mooy nag pour rek daal delloo njukkal ki nga xam ne daal sëriñam la di rek daal Cheikh Alhaji Aboubacar Zeydi Diallo ne daal bu Bantang nag daal delloo ko njukkal moo waral nag daal moom it di docteur Waly Ndaw mu nag joxe li nga xam pour rek daal ñu taxawal fa li nga xam ne moo di daal ab juma ñeneen ñoo xam ne yëkkati nañ fa kàddu bokk na si ki nga xam ne moo di vice président moom vice président Mohamed B.S. Diallo nag daal dina wax ne mu ngi nag daal fàttaleku bu baax a nga xam ne moo di waliwu yàlla bu mag boobu di Cheikh Aboubacar euh, Zeydi Diallo bu Bansang ne daal nit la koo xam ne daal nitu yàlla la woon te nag daal nit la koo xam ne am na lu bari loo xam ne daal euh, taxawu na ko diine islam euh, si biir réew mi ak daal diwaanu li nga xam ne moo di daal biti réew ñeneen si ñi nga xam ne ñoo di askan mi tamit sàkku nañ nag daal ñu nag ñaanal li nga xam ne moo di daal réew mi jàmmi réew mi nag daal yokku li nga xam ne moo di dal bi nga xam ne am nañ ko si réew mi moo di yokkute yi am si réew mi tamit mu doon loo xam ne nag luy yokk la moom waliwu yàlla boobu ñu xamee si se alhaaji aboubacar zeydi diallo bu diwaanu bansang nag daal li nga xam ne moo daal mbootaay bi nga xam ne moom nañ ko duppee nag daal ñoom nag daal xam ne lañ di tabax li nga xam ne moo di daal ab nag daara joo xam ne tamit bugg nañ koo tabax si li nga xam ne moo di daal béré boobu daal dinañ wax ne tamit seen taxawaay nag bokk na si dinag jàppale ñi nga xam ne daal dañ dee faral dinag daal loru bu fekkee daal jiya dal na si seen kaw surtout nag daal jiya joo daanaka waral ne rek loolu tamit ñoom na daal seen mébét la pour rek daal ñu jàppale li nga xam ne moo di ñu mel noonu daal askan li nga xam ne moo di ndox mu sell loolu tamit nag daal na mën a cee daal taxaw li nga xam ne moo di daal askan wi li nga xam ne moo di daal ubbite li nga xam ne moo di daal jumaa ji nag daal bi nga xam ne moo lañ doon amal ni ki nag daal démba bi nga xam ne nag daal ñu koy nag daal ndar keppal nag daal mel na li am na keneen koo xam ne tamit nag daal dafa nag daal di dugg si li nga xam ne moo di diine islam ne daal si ndaje mi profité nañ wala porox la ndollu nañ nag daal di ko nag dugal si li nga xam ne moo di daal islam moom sax daal jamono jii mu ngi nag wuyoo si li nga xam ne moo di tur bu sell boobu ñu xamee euh, si rek daal Mouhamed mu ngi daal euh, tur woo xamee daal ñu moom lañ ko nag daal di duppee si li nga xam ne moo di daal jamono yi ñu nag daal di ko duppee ki nga xam ne moo di yonent yàlla Muhammad euh, sallallahu alayhi wa sallam ñu wéyandi si beneen li nga xam ne moo di daal xibaar lu rek toll si téeméer ñaar fukk ak juróom si li nga xam ne moo di ay taalibi yoo xam ne dañ doon sàkku xeetu xam-xam biñ xame si précomen ñoom nag daal ndar keppal nañ wala jeexal nañ seen i nag daal ab njàng boo xam ne ñu ngi ko doon nag daal sàkkoo si li nga xam ne moo di daara ji nga xam ne moom lañ xamee si di Gambia Public Procurement Institute li nga xam ne daal moo di seen nag daal eh, njàng mu bi mu jeexee eh, keroog alxames nag daal jébbal nañ leen li nga xam ne moo di daal seen ay lijaasa ñoom téeméer ñaar fukk ak juróom yoo xam ne dañ doon nag daal xeetu xam bi ñu xamee si rek daal précumen li nga xam ne daal moo aju nag si rek wàllu nag xeetu xam-xam boobu ñu xamee si précumen xeetu xam-xam la boo xam ne daal nag daal mooy nag daal ñi nga xam ne daal ñoom lañ ñoom ñooy sàkku li nga xam ne moo di xeetu xam yooyu mooy ñi nga xam ne daal dañoo nekk si li nga xam ne moo di ay bérébu liggéeyukaay ñoo xam ne li nga xam ne moom lañ leen di sas mooy nag daal pour rek daal ñu dem di jëndi li nga xam ne nag wala lépp loo xam ne ab nag mbir la moo xam ne këru liggéeyukaay yi nag daal soxla nañ ko ñoom nag daal lañ def faral di sas nag daal ñuy jënda li nga xam ne moo di daal waay yooyu noonu noonu li nga xam ne moo ndaje bi nga xam ne euh, ñu ngi doon nag daal jox ñoom euh, taalibe yi seen i ay euh, lijaasa ki ñu xamee si Fodé Diaité nga xam ne moom moo jiite li nga xam ne moo di daal kër gi ñu xamee si Gambia Public Procurement Authority moom nag daal dina wax ne daal nit ki nag daal saa yu nekk da nga war a nag nekk nag daal ab nit koo xam ne daal danga ngaa jëmmal sa bopp te tamit war ngaa fexe nag daal doon koo xam ne kuy nag daal bugga sa réew réew réew ngay war a doon te nag kuy nag am kóllëre sa réew ngay doon bu fekkee ne daal loolu amal nga ko nag daal lépp lu nag daal euh, baax nag daal mun naa jublu si yow bu ñu sukkandikoo si ak ay kàddoom ki ñu xamee si Habib Dieng nga xam ne moo yore na ba tànk bi ñu xamee si chairman GPPA board of directors moom nag daal dina delloo li nga xam ne moo di taalibe yooyu nga xam ne ndar keppal nañ seen ab njàng be nag jot nga xam ne moo di daal seen i ab nag lijaasa daal dina leen xamal ne daal ñoom taalibe yooyu nag daal fi mu nekk ni comme que ndar keppal nañ seen ab njàng ñoom nag daal ñoo wone li nga xam ne daal moo di xeet xeetu xam-xam bi nga xam ne moom lañ jàng fexe nag daal ñu nag daal di ko nag daal di jëfandikoo ci anam yi nga xam ne moom la nag daal di muccee li nga xam ne moo di ayib gannaaw bi nga xamee ne daal wax ne nag lu aju nag li nga xam ne moo di ger daanaka nag daal si ay këru liggéeykaay yu bëree bari ñi nga xam ne ñoom lañ ci dee gën a joxoñ baaraam mooy nag li nga xam ne eh, moo ñooy ñoom lañ xamee si procurement officers te nag daal wax na ne loolu nag daal ñoom ñi nag daal war nañoo fexe loolu ñu nag daal di si amal li nga xam ne moo di daal ab nag daal euh, euh, coppite nag li moo sàkku si nag daal taalibe yooyu mën a daal ñu nag daal fexe xeetu xam-xam bi nga xam ne moom lañ jàng ñu fexe nag daal jëfandikoo ko si rek anam yi nga xam ne moom la mucc ay ki ñu xamee si Maurice jee Gomez nga xam ne moom nag mooy head of Gambia Public Procurement Institute maanaam euh, daara jooju ñu xamee si rek GPPI moom nag moo ko daal di jiite moom nag daal dina war li nga xam ne moo di daal daara jooju nag daal daara nag daal ju ama am solo la te wax na ne li nga xam ne moo di daal lijaasa yi nga xam ne ne euh, moom la ñëw nag daal di euh, joxe foofu nag daal yemul rek si li nga xam ne moo di daal euh, certificat si waaye nag tamit am na xeetu lijaasa yi nga xamee yoo xam ne wala ak professionnel diplôme yoo xam ne ngi koy nag daal joxe si nga xam ne moo di daara jooju mu nag daal di wane sax daal mu ngi yéebaane am nga xam ne moo di ay daara yu kowe yoo daal ubbi nañ ay bunta pour rek gis ne képp koo xam ne jaar nga si daara jooju nga xamee si GPPI mun ngaa nag yokke sax xam-xam si rek daal yeneen daara yu kowe bokk na si li nga xam ne moo di daara ju kowe ji nga xamee si rek daal University of the Gambia te nag daal bu fekkee ne dem nga si daara yu kaw yooyu nag daal daanaka nag daal lu toll si fukk ak juróom ñetti weer rek daal ngay am si di nga a am a kawe bu ñu xam ne moom moo fa teewal Africa Development Bank si rek daal ndaje mi moom nag daal dina wax ne daal comme que ñun ñëpp nag daal li nga xam ne moom la ñoo woote mooy nag daal réew nag daal bu jaar yoon réew nag daal bu mucc ayib ne daal loolu nag daal war naa tax nag daal lu aju si rek corruption wala wàllu guerre ñun ñëpp nag daal ñu fexe taxaw nag daal xeex ko bu ñu sukkandiku si li nga xam ne moo di kàddu moom na daal dina wane lu aju nag si li nga xam ne daal ñu daal a kër yi li nga xam ne daal daal liggéeyu kaay itam daal wax na ne li yëpp nag daal lu ñu war a nag daal amal nag ab taxaw seetlu la fexe euh, naka la ñoo defee suñ kéem tolluwaay kattan xeex loolu ñu xamee si corruption gannaaw bi nga xamee sax wax na ne euh, ñu bëri nag daal bu ñoo joxoñ baaraam sax li nga xam ne euh, moo di daal procurement industry bi nag liñ ñi gën a joxoñ baaraam si rek wàllub bi nga xam ne moo di corruption wala wàllub nga xam ne moo di guerre Lamine Cissé nga xam ne moom moo moom sax moo jiitee taalibe yi nga xam ne eh, nag daal eh, ñooy nag ñoo doon sàkkoo xam-xam si li nga xam ne moo di daal eh, daara jooju moom nag yëkkati na fa daal kàddu gannaaw bi nga xam sax daal moom sax lañ tànn na daal moo nag daal gën a am li nga xam ne moo di daal ab ndam wala daal moo gën a xarañ ci ñi nga xam ne ñoo doon nag sàkkoo xam si li nga xam ne moo di daal daara jooju moom nag sant na gërëm na ñi nga xam ne ñoo yore kilifteefu daara jooju ñu xamee si GPPI sant na tamit gërëm li nga xam ne moo di kër googu ñu xamee si GPPA si nag daal bunta bi nga xam ne moom lañ leen ubbi disponible ñoom taalibe ñu mun a sàkkoo xam-xam si li nga xam ne moo di daara jooju moom Lamine mu nag daal di i eh, eh, eh, ay lijaasa ne déedéet war nañoo fexe ñoom ñi ba noppi nañ fexe li nga xam ne moom lañ sàkku si xam-xam bi ñu fexe nag daal di ko jëmmal jëfandikoo ko nag daal si yi nga ne moom la gune gën a mucc ayib bu ñu sukkandikoo si rek daal ay kàddoom si ndaje mi tamit am na nag daal ay nag daal certificat wala ay lijaasa yoo xam xam ne euh, jébbal nañ ko ñi nga xam ne ñoo di taalibe yu nga yoo xam ne ndar keppal nañ seen ab njàng am tamit euh, ñeneen ñoo xam ne tamit nag daal jot nañ fa li nga xam ne euh, moo di daal ay nag daal lijaasa bokk na si tamit li nga xam ne moo di daal ay nag daal jàngalekat ñoom it nag jox nañ leen li nga xam ne moo di daal ay ay lijaasa li nga xam ne moo di daara yooyu ñu xamee si GPPI daara la joo xam ne daal du daal ñi nga xam ne ñooy liggéey si rek ron nguur gi lay dalal wala daal du ñoom ñoo fay nag daal jàngee waaye nag daami am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi jógee ko si yeneen li nga xam ne moo di fànn mi ay bérébu liggéeykaay yoo xam ne dañ dee faral di dem si daara jooju nag daal di fa sàkkoo li nga xam ne moo di xeetu xam-xam bi ñu xam si rek daal xibaar nag daal gu mujje gi juróom-benni fan si weeru dixième nag daal la juddu woon moom ki nga xam ne moo di woykat bu bu mag boobu nga xam ne ñu ngi ko xamee si rek daal Pape Touré moom nag ku ñu nag ràññee la fii si biir réew mi ak sax diwaanu li nga xam ne eh, moo di daal eh, biti réew mu ngi nag juddu si daal atum 1940 nag daal la daal di juddu eh, moom nag daal bokkoon si li nga xam ne moo di baan biñ xamee si Super Eagles nga xam ne daal ab baan la boo ne daanaka si rek daal atum 1960 si am na daal ay jaloore yoo xam ne def nañ ko si suufi li nga xam ne moo di daal West Africa gannaaw bi nga xam ne daal ab band la boo xam ne nag daal di amal ay xeetu musique nag daal yu wuutee bokk si yoo xam ne ko daan nag daal di amal si atum 1970 nag daal ñoom li nga xam ne moo di band boobu ñu xamee si Super Eagles ñoom nag daal ñu ngi amaloon li nga xam ne moo di ab xew-xew bu boo xam ne ñu ko amaloon si li nga xam ne moo di université wala daara jooju ñu xamee si rek University Kumbaasi nekk si euh, dëkk bi ñu xamee si Accra réewum li nga xam ne moo di daal euh, gaana te nag daal mun na ñëw wax daal daanaka nag daal seen xew-xew boobu nag daal euh, moo nag nekkoon seen xew-xew bu mujjee boo xam ne ñi nga xam ne ñoo bokkoon si band bi nag daal ñu ngi ko doon nag daal di amal si atum 1973 nag daal ñenn ñi nga xam ne bokkoon nañ si band bu bokkoon na si ki nga xamee si rek daal Pape Touré ak ñu xamee si Badou Diop ñoom nag daal dañ nag daal génn band boobu ñu xamee si rek daal Euh, Super Eagles utali beneen baan euh, biñ xame si Ifa Mbondi Ifa Mbondi nag daal baatu li nga xam ne moo di mandinka la wala baatu soose la buñ ko doon nag daal euh, daal di faram fàcce wala buñ ko doon tekki si rek wolof mooy nag daal wonel sa boppa noonu la nag baan bi nag daal di tuda ab baan la boo xam ne nag daal bi mu tàmbalee nag daal am na ab joloore boo xam ne moom it nag daal daal dina ko def bokk na si nag daal daan wëy li nga xam ne moo di ay musique li nga xam ne moo di daal aada bokk na si nag daal di nag wëy ci nag daal suñu kàllama li nga xam ne moo daal euh, réew mi di tamit nag daal amal li nga xam ne moo di xeetu euh, musique bi ñu xamee si rek daal afro euh, euh, manding li nga xam ne ki nga xam ne daal xam wala kenn koo xam ne xam nag daal màcc na si rek wàllu taarixu li nga xam ne moo di daal musique moom nag daal dina wax ne li nga xam ne moo di baan bu ñu xamee si FM Bondy a baan la boo xamee daal daanaka nag daara woon boo xam ne ay music musiciens yu bëri jox dañ fa daan faral di fa nag daal di jànge jànge wala daal dañ daan faral di roy si li nga xam ne moo di daal baan bu moom sax daal dina tudda ne daal Euh, ki nga xam ne wala ñi nga xam ne daal ñoo di musiciens yi nga xam ne daal euh, seen tour fees na ki ñu xamee si euh, tour ñi ñu xamee si Touré Kunda Youssou Ndour Mori Kanté ak baaba Maal ak ñeneen ñoo xam ne ñu ñu ràññale si musique daanaka nag daal ñoom mun na ñoo wax daal am na lu bari loo xam ne jàngeen nañ ko si li nga xam ne moo di bande boobu ñu xamee si rek daal Ifa Mbondi waaye moom ki ñu xamee si Paps Touré wax nañ ne nit la woon koo xam ne ku nag daal amoon cawarte la si rek wàll nga xam ne moom la doon nag daal di yëngu rek daal nit la woon koo xam ne daal ku nag si woon la si li nga xam ne moo di daal ab jamonom te nag li nga xam ne moom la daan def nag daal daf si daan wone li nga xam ne moo di mbégte maanaam eh, mbir la woon woo xam ne lu mu bëggoon la lu ko daan neex la bu fekkoon daal mu ngi ko doon nag daal di def eh, te wax nañu nag daal moom nag mu ngi uyu ji boromam si rek weeru match atuma 2003 ñu di ko ñaanal moom eh, Pape Touré yal na ko suñu borom yërëm xare ko si aljana yu gën a kawe ak képp koo xam ne aji jiitu nga mbokk yi loolu mooy ndar keppa wala mooy jeexal seen jotaay bu mag bii di jotaayu xibaar yi xaritu borom bi ak askan bi Ibrahim Khalil Gueye moo leen ko doon jottaleel si kalama wolof jaajëfal leen si seetaan bi ak déglu bi jaajëfal ñi jàppoon si xibaar yi ba mun a sotti jaa ngeen jëf